lépp lu mu doon ñun ci làmb bi ñun ba ñu ñëw dañ ko def kon maa ngi koy ñaanal loolu man ngeen na ko yàlla may ndam ci barke bi sax sax jël sa bi ay saagante affaire yooyu noonu ay wax yu ñaaw mbër la champion la te ku ko xam laa wax naa la ne benn jour li ma foogul woon moom laa laa gis ci moom ay mbër kaamil la yàlla na ko yàlla may ndam ama boo ko xamul xamoo ko mais man xam naa ko yàlla yàlla may ndam te xam naa li mu am. dama mën a bëre toll nañ ci làmb ji ba pare jaaduwul ñuy wax lii ak lee. waaw ah, xam naa ne champion la daanaka kulli fan bi yàlla na ko yàlla may ndam. allez dara. ah ñu gis nga am tey géejawaay ñaari combat Boucher war a bëre. Gàkku war a bëre. Balla Gaye teew lan la la def en tant que ma géejawaay. waaw ah, dañuy sant yàlla ak yonent bi ñu jul suñu ñaari waajur. Thierno nee na la bis bi tey dañ ko respecté dañ ko fonk. xale ko. ndax nee naa boucher. kaf euh, jël reer teg ko fële. jël comédie bi teg ko fële. góor mënu la góor mënu la li ci des la fu jom c'est tout loolu mooy fulla ak fayda ak jom ah. te ci kanam tuuti ngeen comprendre xam ne bis bu ñor na ko bis nee naan wëyu la bandit la agresseur la sàcc la ndax xamuñu ko booy xamuñu ko eh, xamuñu ko ci kanam tuuti ngeen ngi comprendre kan mooy Gackou 2 li tax nga wax loolu yëpp la dama xam Gackou dañoo di takk booy bi di takk pokola pokata pokola eh, Gackou bandit la wëyu la sàcc la la parcelle li ñuy takk pokola naan pokola Gackou wëy la de. xam naa ko je connais Gackou ci kanam ngeen koy comprendre. arrivé Balla Gaye arrivé Balla Gaye stade bi yëpp jóg. waaw ah san gars yi dañ ko na gars yi dañ ko namm. te incha allah nan xaar may ko tuuti rek mi ngi ñëwaat. te billaay kay na mer la fanaanoo li mu def day motivé xale yi xale yi ko gis ñoo gën a firi dañoo gën a firi su ko ñaanal yàlla defal ko jàmm ñaay gis naa mu gàddu saaku ñëw indi saytaan ñëw indi ñëw far gis naa ko muy an jokkel Fatick jokkel moom lu mu am lay wu ci Kéba moo waral mu dem ànd ak Jokal saytaana man moom Caaroy la dëkk man Géejawaay laa dëkk Géejawaay ga ma dëkk dama koo gëm man. li nga xamante ne moom mbër di war a waajale indi nañ ko am ci moom yaakaar ginnaaw ba ñu amee suñu borom yaakaar ba pare am ci moom it yaakaar ci digg géew bi ko ñaanal yàlla yàlla may ko ndam ndax lépp li nga xamante ne mbër war na ko def rek pour mu am ndam def na ko gis na ay gis na ay partenaire yi am di jaamam ba tax daal maa ngi koy ñaanal ndam bu rëy maa ngi ñaanal Boucher aussi tamit Ketchup yàlla may ko ndam mbëri gi yaay mbëri bi yëpp yàlla may ko ndam di remercier aussi tamit suñu président Pape Mama Fall mi nga xamante ne aussi tamit école bi am na beneen changement bi nga xamante ne lépp li nga xamante ne nit war na def rek ñun ñëpp ñoo koy bokk ànd di ko def di soppule ñu ne ay espoir lañ ñu def ni stade bi duy ko ba mu fees del loolu ban yëg-yëg nga ci am kontaan ak xol bu seddu guy ndax bu ma ñëwee gis fii fees dell te ñu nekk espoir bu làmb doxaatee deux ans trois ans ñu mun koo feesal ba tëj ko kon am nañ ci ñoom yaakaar ndax ñun dañoo soxla ay yeneen Balla Gaye ay yeneen Lac de Guiers ay yeneen Sa Thiès yeneen Gouye donc ba tax ñoom lépp lu ñu nekk rek dañ koy nekk ba tax na daal yal na yàlla jàppale taxaw leen fépp fu toll rek ñu leen dégg yàlla nañ ko toll ñu dégg kenn mën ta wax làmb tooxul Balla Gaye ma xam ni nga mel ci xolu nit ñi say supporters lan la ñuy xaar ci yow fiis waaw bëri na bëri na waaye daal supporter ku am jom dafa neex te samay supporters xam nañ ma li ci kanam loolu di bët nañ ñaan yàlla yàlla yóbbu ñu fi te bàyyi ñu lépp li nga xamante ne soxla nañ ko ci làmb bu neexee yàlla suñu borom dinañ ko am ba pare doo ko bàyyi.